Assalamu alaikum les sénégalais de la diaspora Assalamu alaikum les patriotes vous alerte bu nous sommes nañu préparer nañu préparer avec tous les moyens te le combat est inévitable Macky Sall le prenne pour la population bi ànd seeg général Moussa Fall Wallahi wallaahi barke alxuraanu karim Macky Sall pour def troisième candidature Macky Sall pour déclarer troisième candidature André général Moussa Fall pare nak pour jàkkaarloog askan wi Wallahi, wallahi le combat est inévitable ñoom pare nañ pour jàkkaarloog askan wi ànd seen nag général Moussa Fall waaye ñoom seen biir juboowuñu mooy yenn cadre yi yu nekk gendarmerie juboowuñu am na ñu ci bari ñoo xamante ne ànduñu si juboowuñu ay suus yu leer laa leen di wax billaahi wallahi watalahi Macky est prêt pour déposer candidature en 2000 en 2024 xamna ne nak dina askan ils ont déployé tous les moyens nécessaires pour déposer cette troisième candidature waaye nag am na ñoom seen biir ñi nga xamante ne ay cadre yu nekk gendarmerie nationale ànduñu si ay gradé yu nga xam ne jubawuñu seen biir actuellement sama gars yi nañ dem si l'essentiel gis nga Macky Sall il faut ñu jaay ko suñu bakkan bi wan na ko ñun ñoo ko gën a pare Billahi Wallahi wa et Macky Sall pour déposer troisième candidature de général Moussa Fall xam nga buñu démé ba ay policiers pour le ay policiers policiers peul pour kon l'heure est grave ñu nga xamante ne sax olof sax non les gars l'heure est grave focus c'est 2024